xam mooy ngëneel yi daal ci biir weer wi. ajaayda weer bu màgg mooy nekk weer wi ñu nekk weer la woo xam ne yàlla def ci def ay ngëneel yu yaatu yàlla subhaanahu wa taala ci coobareem dafa tànn ay mbir ci li mbind eh, def ci yooyu mbir ay ngëneel mu tànn ci weer yi at mi muy fukk ay weer ak ñaar mu tànn ci weeru koor muy weer wi gën ci weer yi ni nga xamee ne itam téere yi wàcc ci bàyyee ko asamaan ñëw ci doomu aadama yi ñu ci gëm ñeent la ji gën a siiw alquran moo ci gën ci liñ gëm noonu itam mbindee fi yonent bi salaa salaam gën ci nga dem malaaka yi itam jibril alayhi salaam demet ila axiri su ko defee nag weeru kaw li tax mu gën dafa xam yu bëri yu mu làmbot ah, moo di ne yàlla subhaanahu wa taala daf ko tànn ci misaal mu def ko mu nekk lu mel ni ah, training workshop boo xam ne jullit yi dañ ciy defaruwaatee seen mbir li tax yàlla bind leen ci kaw suuf mooy pour ñu jaamu ko mm-hmm. jaamu googu nag dafa mel ni weeru koor daf leen ci dimbale ñu mën koy rafetal ñu mën koy matal ñu mën koy hégalé fi nga xamné fofu la yàlla buggee lolu motax bi yàlla bi ñu wax ci weeru koor daf ne shahur rama kutiba aleykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun manam faratal nañ ci yéen ngeen ni comme niñ ko faratalé won ci xeet yi leen jitu won li tax ndax ngeen mëna am ragal yàlla melni yàlla subhanahu wa taala dafa bëggu ñu ragal ko melni ne ragal yàlla moy buntu bi nga xamne ci liñ suñ ko lon misal ci dem ak doomu adama ci jëm ci yalla dafa melni bala mo ex ci buntu bi ku lon tukki du wara dug plane bi ngay dem jëm airport yegg gulo boo dem ba airport nak, fofu nag ngay digi nga yéegee nak buntab ragal yalla nga xamne naw rek dem ci jago ji mo ci dess melni tay nit ki fek bu mu yéegee ci buntu ragal yalla li muy def yëpp dafay way dem agut hmm. fek yegut ci ragal yalla rek ah, bunti asaman, wala bunti da fay dess mu mel ni nag weeru koor dafa ñëw ngir yóbbu ko ci péyëb ragal yàlla nga xam ne su nit ki ooree ci ni ko yàlla buggee ci niñ ko waxee dafay egg ci péyëb ragal yàlla weeru koor ci boppam mu nekk weer woo xam ne li tax mu làmb ay ngëneel euh, yonent bi salaa salaam daf ko wax ci ay hadis yu bëri mu ne su fekkee ne weeru koor teru na seytaane dañ koy jéng yeew ko te seytaane mboole musiba ju am ci kaw suuf moom moo koy waral seytaane mooy rafetal lu ñaaw nit ki ba mu gis ne lu rafet la seytaane mooy fàttaloo nit ki boromam ba du ko jaamu seytaane mooy jay nit ki ba mu tooñ mhm. seytaane mooy jay bakkan ba mu beew mhm. yooyu nga xam ne nag mooy tax ñàkk dem doomu aadama ci boromam bu weeru koor jotee moom seytaane comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee dañ koy jéng mu nekk benn place dootu mën a dem borom xam-xam yi ñu ne li ko waral mu ne parce que or ci boppam dafay tëj bunti deret te seytaane moom ci direct doomu adama la muy daw di ko jax-jaxal su weer koor jotee na nit ki xiif ba xiif bi jàpp ko direct jooju seytaane daan jaar di daw di ko jax-jaxal dafay taxaw su ko defee seytaane moomu nag nga xam ne ñu ngi koy tënkal doomu adama yi ñu ngi koy tënkal jaamu yàlla yi loolu benn la ci ngëneeli weer koor ñaareel ba mooy ngëneeli weer koor aji ayda su jotee yonent bi dafa wax ne bunti àjjana yëpp dañ leen a maintenance dañ leen a ubbi àjjana every day ñu koy maintenance al jullit yi ngir ñu waaj ku ci àdduna ku ci ku ci dellu ci boromam rek dem àjjana googu sell googu waa àjjana googu nga xam ne nag ñun ñëpp moom lañ yaakaar moom lañ bëgg foofu lañ bëgg a dem su weeru ko jotee every day dañ koy maintenance di defaraat buntu di ko rénover mu gën a taaru di gën a rafet loolu itam ngëneel la ci weeru koor weeru koor ngëneel bokk na ci alquran ji nga xam ne ci la yàlla tënk njub ak doomu aadama yi jàmmi doomu aadama yi ci àdduna ak alaxira ci weeru la wàccoon chahru ramadan allazi hudan linnaasi wa bayyinaat min alhuda wal furqaan moom weeru koor ci la ñu wàccee alquran bi nga xam ne mooy téeréem njub ci ko suuf su ko defee alquran googu nag ah, ngëneel weeru koor ci bunt yooyu ñu wax dafa yaatu li tax weeru koor am ngëneel liñ ci yàlla digle ci xeetu jaamu yàlla dafa yaatu liñ cay def mu am njëriñ gën a am doole gën a am degere dafa yaatu loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ba may wax ca xadis ba dafa wax ne yéen nit ñi weeru koor mu ngi ñëw ma si dugg weer la woo xam ne bu màgg la fa yàlla waaye weer wu bari barke la li tax mu bëri barke moo di ne dafay yomba jaamu yàlla te jaamu yàlla goo def dafay yomba dafay am doole waxoon nañ fi léegi ne seytaan dañ koy tënk kon loolu kon bu seytaan tënkoo rek loo def mu bëri waaye bu seytaan yi nekk nag di dox mhm. loo def dafay tuuti wala loo def sa mu yàqal la ko buy mhm. julli mu jax-jaxal sa xel mi bu jaxasee sa xol bi ila axiri yi waaye nag bu seytaane ñëwee tënku yow loo defa dafa yomba bëri dafa yomba sakkan ci jaamu yàlla mu ne nag yonent saa sallam wax ne ci nekk na ci biir weeru koor genn guddi goo xam ne euh, ngëneelam mu ëpp junnee weer loolu ci barke weeru koor ak ci ngëneelam mu ne yàlla def na weeru koor su fekkee ne nit ki jëf na ci jëfi naafila ci jaamu yàlla naafila jaamu yàlla gu nekk am na naafila xaj am na naafila naafila ak xaj mooy umra julli yi juróom am nañ naafila mooy naafila yi taw yi ngay def balaa julli euh, wa or am na naafila mooy yeneen koor gàttangal yi ah, wa asaka am na naafila mooy sarax yi ñuy saraxe mm-hmm. demet ci mbooleem xeetu jëf ju baax bu fekkee nag nit def na yooyu ci yu baax yooyu ngir jaamoo ko yàlla te sellal ko dañuy yëkkati digiri jëf ja yóbbu ko ci digi rep ku jëf-jëfi farata te yàlla subhaanahu wa taala waxoon nañu ne moom suy fay jëf dafay fay benn pour fukk maanaam du fay benn benn. ku def benn mu fay fukk mu fay kon su fekkee ne nag te loolu mooy jëfi farata. Mhm. waaw léegi nag jëfi naafile yooyu nga xam ne moom dafa wàññeekoo moom moo gën a néew degré farata ci lu dul weeru su weeru ko jotee dañ koy yéegal yóbbu ko ci degré farata. waaw kon farata yi nag moom fu ko yóbbu ñu ne farata koy dabul benn farata boo def ñu jox la ko juróom-ñaar fukki farata xam nga yooyu ay ngëneel la. su ko defee nag doomu adama su yoroo jotee. Euh, li ko war mooy leen di sallallahu alayhi waxoon ci benn xadis ñu ne dafa taxaw benn bés ci commune mbar bi ne amin ne teg dellu ne amin ne teg dellu ne amin ba mu ne ñetti yoon mu ne saxaaba yi ndax xam ngeen lu ma wax amin ñu ne ko déedéet mu ne léegi la jibril wax ak man ne ma yonente bi ma ne ko naam mu ne may neel yenn toskare yenn perta koo xam ne tudd nañ la ci kanamam te julli wut ci yow julli dinañ bàyyi xel loolu bu baax a baax fépp foo xam ne dégg nga yonent bi ñu ne Muhammad teg ci sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu ñaanal la ko laal te ñaanal la koo xam ne ci yow la mooy dellu mu ne nag ku nayee bañ a wax loolu kooku mm-hmm. ne Jibril ma mu ne bi mu waxee loolu neel amin yonent bi ne amin mu dellooti ni ko yenn perte yenn torox koo xam ne fekkee na ñaari way juram wala kenn ci ñoom dund ak ñoom ab diir te jëfalul leen lu yàlla gërëm ba mu dugg ci àjjana loolu itam lu jar a bàyyi xel la. fonk waay jur fonk waay jur. Mhm. neel jibril mu ne jibril ne ko neel amiin yonent bi ne amiin mu ne ko waaye neel ji mu ne ko mu ne ko yonent mu ne ko naa mu ne ko yenn perta yenn torox waajoo xam ne fekk na ko weeru koor ci wér gu yaram mu xam jot te gaawut jëf jëf hmm. nga lu ñu wax ne aji ayda. boo defee benn jëfi naafi la. Hmm. ñu fulandi ko mu def ko dégere farata. Hmm. saraxee fi wax ju baax fi. jàngal Quraan a ngi fi naafila guddi a ngi fi demet xamle a ngi fi lu ñuy jàngale a fi lu nekk rek soo mënul loolu yëpp sax nga téye sa bopp ba ñu def lu ñaaw sax ngëneel la ci weeru koor su defee yooyu yëpp nag weeru koor jot la nga bàyyi sa ñu tënkal la seytaane bi la waroon a sonal ñu tënkal la ko jox la loola sawarloo ci jaamu yàlla loolu yëpp ne fi nga torox nga teyal ba defoo ci dara ba weeru koor jeex wax ne seytaane ma jàpp déedéet foofu moom kenn kenn du ko maalee xanaa bakkan mm. ba tey moom mu ngi fi moom mm. waaye seytaane mi ko doon jox doole moom mm-hmm. moom tey nañ ko waaye bakkan nag moom ba tey mu ngi fi mm-hmm. fu mu nii nga gis ne ne moo tax dafa am solo ñu war a bàyyi xel bu baax ci or góorgóorlu ci buñ dog fekk ñu ko tey buñ ut lay ngir dog xam na yu dagan nag bu dalee aw nit ci biir weeru koor mën naay dog islam ci yombalam ndax dafa nekk diina joo xam dafa flexibilité du diina joo xam dafa jafe soo la santee lii mënoo ko defee nii mu ne mu ne wàññi ko defee ko nii <laughs> soo ko mëneew noonu mu ne tuxul demal na le bu tey mu ne la julli jullil taxaw ci ci njàpp lu tooy xep nga taxaw julli du kooy ba mu mat nga ne ko man nag dama feebar mënumaa jàpp mu ne kon bàyyil jàpp tiimal nga ne ko waa man tiim na mënu maa taxawal mu ne kon toogal wala taxawal nga wéeru waaye waaw waaw loolu yëpp mu ngi lay wax ne dafa flexibilité sa te yooyu yëpp boo bàyyee li nga mënoon bi euh, biñ la njëkkoon a sant ngir jafe ñëw ci beneen bi yaa ki ko mën yéen a kepp yeneen a kepp yam tey ki mën a julli ki mënta julli jàpp ak ki mën a julli jàpp ni nga mënu ko julli ba tax ñu ne ko tiimal ñoo xem ñoo ñoo yem fay ci yàlla loolu ma laa ne dina ju am flexibilité la dina ju yomb jooju nag dina ju mel noonu nag nga nekk ci nag ci biir weeru koor te mënoo ci góorgóorlu ba jéem a jëmbatal yàlla subhanahu wa taala lu lay mën a rawee kon borom bakkan not na ko lool loolu moo tax yonent saa sallam ne yéen a perte yéen a parce que koo xam ne weeru koo fekk na ko muy dund ci jaamu ak wér gu yaram te deful ci yàlla subhanahu wa taala lu koy tax a texe. Euh, sekk xam nga comme weer wi wax nañ ci ngëneel yu am solo yooyu. Mhm. léegi nag euh, lu dul rekk ñàkk lekk ñàkk naan. Mhm. Euh, wàññi sa bàyyi sa bànneex ak yooyu yëpp. Mhm. lan nga foog ne nag jullit bi. war na koo def ci yokka jaamu am ci biir weer wi. Mhm. ba mun a am ci ngëneel yooyu noonu. tabaarakallah bëri na trop